أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على من أرسل ولم يرسل إلا رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di delsiwaat tey ci suñu bindu tey tey ñu ñëwaat ci mbind moo xam ne mag moo ko bind jëme ko ci mag mag mi ko bind buñ la waxee mooy kan kon ka mu wax wax ji jëme ko ca moom it war na ñoo xam ni kooko du ko ndaw ndax ñaari nitu yàlla la yu doon sargalante nitu yàlla benn nitu yàlla bi di sargal beneen nitu yàlla bi benn nitu yàlla bi ko bind nag mooy Cheikh Al Hadj Mouhamadunil doomu Cheikh Al Hadj Malick moo ko bind jëme ko ci beneen nitu yàlla bu ñuy wax sëriñ seexu si sëriñ seexu si nag mooy doonoon boroom këru soxna Zeynabu si doomu sëriñ Babacar si soxna Zeynabu nag sëriñ Babacar si daf daan wax ni li muy jigéen moo ko jaaxal waaye xam na cëram moom soxna Zeynabu sëñ kër si xam na cër bi ko yàlla defaloon ku ko bàyyi woon xel la nag daan wax ci moom ay wax yu yéeme bari na góor goo gis mu takk ndiggam di jaabante ci tànt te soxna Zeynabu Si moo la gën a mokkal xilaas moo la gën a dégg xilaas bari na koo gis mu kaalawu te soxna Zeynabu moo ko gën a dégg fiqu noonu nag mu mel noonu ci xam-xamu zaahir noonu la wilaaya gin toll moo tax nag kooku noonu sëñ Babacar Sy doon wax ci moom kàddu yu doy yu tol noonu ku sëriñ kër si wóolu ba yëkkati ko jox ko ko dénk ko ko kooko dara nga te sëriñ Seexu Si mii Sel Xaaji Mansour di wax ci moom xasida bii moom la sëriñ Babacar Sy yëkkati soxna Zeynabu dénk ko ko muy mu doonoon soxnaam Sel Xaaji Mansour nag daal ni قصيدة بمنكت منكت أمبلي فيا محط وداد القلب مسكنه قد طاب قلبي بشكر لست أحصيه من فيا محط وداد القلب قلبي ما عندي وسبيكا يسمى كفي لخر نحن سما خل كفي الجيت نك بدون أبربل أم نفوا خم نفلا كوي mu ni ko ñu ni ko mooy kan mu ni maskanahu ki nga xamante ni moo dëkke mooy sama dëkkaale xol maanaa ki nga xam ni sama xol jógul ci moom mooy ki ma sopp ñu ni ko loo bëgg a wax mu ne xat taaba teey na xal bi sama xol nee na ko bi sukrin ci ci ak cant goo xam ni lastu uxsiihi cant gi mënumaa xam fu mu yem man naa tàmbale naa ko rek waaye xaw ma fu mu yem léeg-léeg nit di sant te fekk làmmiñ bay sant waaye xol bi santul mu ni ko nag lii ma lay sant sama làmmiñ la mi ngi lay cant sant waaye sama xol mu ngi ànd ak moom di ko sant moo tax taaba tey na xal bi sama xol bi su sukkurin la su oxsi ñu ni ko loo bëgg a wax alaaji Mansuur mu ni indi naka man Mansuur uhanni ukum maa ngi lay ndokkeel yow Serigne Cheikhou si wal xal bu te fekk sama xol bi jamono bi ma lay ndokkeel su faraxin boroomu mbégte la ñu ni ko ci loo koy ndokkeel mu ni minal walimati ci céet gi mu ni ko maa ngi lay ndokkeel ci céet gi nga am mu ni ko ndax lan amrun mbir la mu rëy boo xam ni neex ma baax na maa la nga xam ni fii yi nekk na ca mbir moom nee na ko sa céet gi du bokkut ak céet yi ci des mbir la kon nag ki may waxal bu ngeen ko xamul fatan arab bu ne diw fatan rek mooy koo xamante ni dafay bañ rus mooy koo xam am na lu muy jombale abiyun di aji mbañ rus koo xamante ni lu mu war a bañ da koy bañ minal ibaa anufun ku kawe la koo xamante ni askanam kenn xeebu ko xam-xamam kenn xeebu ko waaye jikkoom it kenn xeebu ko kaana nekk na moom mujtahidan di aji farlu fi nafsihi ci boppam maanaa ku koo xamante ni fooyewul boppam la waaye maa ngi lay xamal ni laysa sirrul xub xibbi déet mbootu ab aji soppe ab soppe yuf siihi mu koy siwal nee na ku mën a denc secret la nee na du xam ci yow benn secret ba nga dégg ko ca mbedd ma nee na loo ko dénk ci secret xamal na ni yow sa bopp nga ko dénk boo ko génnewul moom du ko génne lahu moom am na moom Serigne Cheikhou Sy ak tajalludu ak dëgërlu fi axwaal yi ci ay mbiram mooy nit la ku koo xam ku ñeme position la mooy lu mu xas choisir da cay dëgër wala am na muru atun nag ak ab personnalité mooy nit la woon bu am personnalité xam boppam fii jami añ naa si ci mbooleem nit ñi tag fii boo xam ni dina ko doy nee na am na personnalité am goo xamante ni bu ñëpp teewee nee na personnalité am doy doy na ñu wax mooy kan maanaam tiitaroowul juddoom tiitaroowul kenn waaye boo ko xoolee rek ak personnalité bi da ngay xam ni kii du nitu kese من إن السياسة نكتر لنورها والآداب أتجن سيمته ميجكم ممس حاجس الشيخوسي وقد درى خمنا من غتي مم لما وخ زالول من كيف كو خم كان نك يدريه دي خم على سرين شيخوسي نين تريلين كو رفت أك تجن يو أم يو يو أك أي تجن نين ميجكم كنك يا صاحب العيسي min naxwi lati raxalat ila dakaari wa amri lastu uxfiihi mu ni ko yaa saaxibal aysi yow bi nga xam yaa war gëléem gi min naxwi lati jëm ci wàllu jëm jóge ci wàll wi nga xam ne raxalat laxase na fi moom gëléem gi ila yi jëm dakaar yow mi nga xamante ni yaa ngi war oto bi jëm Dakar maa ngi lay xamal ni wa amri te sama mbir lastu uxfiihi nëbbuma ko te mooy sama cofeel ci digganteeg kooku ngeen jëm nëbbuma ko kon nag balligh ila waasilil arxaami xaafidiha salaama man ahduhu ma zaala yuxyihi nee na ko balligh jotalal ma ila waasilil arxaami ci ka nga xam ne dafa dëkk di jokku mbokk xaafidiha di sàmm mbokk salaama loo koy jotal salaama man nuyoo koo xam ne ahduhu wëllëreem gu mu wëllëranteeg moom mazaale kooku deñul muy maam alaaj Mansour deñul yox yi di dundal kóllëre gi ko lëkkaleeg maam Cheikhu si mu ni ko bul ca yam waqul lahu fal fal yadum fii dëbihi abadan sidqin wa xilmin fa rabbu naasi yujzihi mu ni ko waqul lahu wax ko ne ko fal yadum na sax rek fii dë bi ci liñ ko miine abadan faaw nee na liñ ko miine muy tëralin gu rafet teggin ak xam boppam ak di jokk mbokk nee na na ci sax de ñu ni ko ak lan mu ni sidqin ci dëgg ci dëggoom giñ ko xame wa xilmin ak lewet gu gu gu ñu nangu ku la yeb mooy lewet lewet gu na àndut ak nangu ku la yeb mooy alxilm bu ci nit mu ni ko nag fa rabbu naasi boroomu nit ñi muy suñu boroom yu jihi moo koy fay ci loolu muy def kon nag laa tax bu mu ubbi alayna bëtam lil aswa jëme ko ci nit ñu bon ñu ñaaw ñi ñi nga xam dañuy ñaawal mut li fi naa ak képp koo xamante ni dafay def ñu yàqal fii ci fii nekk na ci kooku awaa iqu ay gàllankoor tur diihi yoo xamante ni dana ko alak an mawlaaka ci mu bu bu wëlis sa boroom waaw koo xam te ne dafay yàq nee na kooku képp koo xamante ni kooku nga xamante ni mu ngi yàq di dox sa diggante nit ñi di yàq kooku na nga xam ni loolu muy def da koy dog ci digganteeg suñu borom kooku nag nga xamante ni dog na ci digganteeg borom kon bul ubbi sa bët di xool la muy def ndax nit ku yàqu kenn du ko xool kenn du ko kenn du ko bàyyi xel mu ni ko wattul da nga dàq anil xal bi ci sa xol suu avan ni ñaawum njort min xaramil ixlaasi ci ñaaw ci ñàkku euh, ra euh, sellal lillahi ci yàlla min ah taxmiihi nga di ko aar min ahwaaka ci koo xamante ni sopp na la ah, mooy mooy say fant ñi la ñi la sopp mu ne ko ñi nga xam ni bëgg na la wut si la muy njaboot ji ñi nga xam sopp na la daw si wut si la na nga rafetal njort jëme ko ci ñoom waaye bul ñaawal njort mukk kon ñaaw njort daal génne ko ci sa xol nga sànni ko képp ku ñëw daal rafetalal sa njort bu ñëwee fekk fi lu baax xayru bu indee lu baax yow sa rafet sa njort rafet na bu fekkee indi na lu bonit yow rafetaloon nga sa njort mu ni ko waasi ta nga moy man képp koo xamante ni yaxuttu ko ma nga lay ma nga lay gotti min redal maula ci euh boromam mu ni ko képp koo xamante ni ma nga lay wàcce ndax cër bi nga am ak loolu te xamul la yow yaay kan ne na ko fu mu jaar bu fa jaar teggi ko ndax ku la xamul it nga xam sa bopp mu ne ko nag waxaali fi naf sa wuuteel ak sa bakkan loola sa bakkan digal bu ko def de ndax dalay to dalay yàq wa seytaana li los iblis digal bu ko def de taasi yi na nga mooy iblis mooy gépp bon ba mu des mooy iblis kon deel mooy iblis wa sukka na nga fatta sama sa dégg sa nopp in zamm boo toogee nit ñi dégg leen ñuy ŋàññi di tudd nitu yàlla di wax ci moom lu bon nee na bul nangoo dégg wa in madaxu même bu dee dañ koy tagg it bul nangoo dégg maanaam bul bëgg ci tagg bul bë mer ci xas yow looy def rek waxtulub sàkkul li ngay def ridallahi ngërëmal yàlla fil amaali ci mbooleem jëf yi tur di yi nga cay gërëm loolu yàlla bu ci xool nit de mu ni ko in xus in xustahu soo làqee loolu saax yow sama xarit xusta làq nga alxayra yu jumlatahu mboolem jumlaam mu ni ko jawful fara kullu saydin mu ni ko jawful fara li ñuy wax jawful fara li nekk ci biiru njagu njagu njaay àll kullu saydin làmb ndam mboolem rëbb yi kaana nekk na yax wii di ko làq ndax jawful fara soo ko déggee mooy maanaam jawful fara soo ko déggee mooy masala la bu bu arab yi daan daan joxe jiitu na sax yonent bi sallallahu alayhi wa ndax dafa am ñetti nit ñu musa ànd dem rëbbi kenn ki bi mu rëbbee mu jàmm mu jàpp euh, benn benn bëy benn kéwal kenn ki moom daal di jàpp benn lëg am kenn koo xam ne njaay àll la la la fetal yenn ko léegi nag ñaar ñi nga xamante ni kéwal ak ak lëg moom lañu ñu rëbb ñuy reetaan ki nga xamante ni moom njaay àll la la rëbb ki yore njaay àll bi ni leen yéen de dangeen a dof ndax li ngeen rëbb yéen ñaar ñëpp seen kéwal gi ak seen li ñuy tuddee seen euh, lëg bi mu ngi ci biir sama njaay àll bi maanaa daf lu bëgg wax ni sama njaay àll bii ma bii ma jàpp seen kéwél geeg seen euh, lëg gi mu ngi ci biiram kon njaay àll ku ko rëbb ku ko ku ko jam ci ci rëbb gañe nga kon nee na nag mam cheikhu yow bu doon ni cër ci këru nitu yàlla yi ñii dañ doon rëbb ay kéwél ak yooyu yow njaay àll ci boppam moom nga rëbb kon gañe nga mu ne ko nag taxtal mashiati dum lillaahi mutakifan mu ne ko dum saxal lilla taxtal mashiati ci suufu cooba rek sunu boroom mutakifan ngay aji euh, sax foofa lillaahi ngir yàlla nga nga taqoog loola ndax lan is kullu ma shaahu ndax lépp lu neex yàlla yu yi dana ko dawal fil xalqi ci mbindeefam ndax yàlla lu ko neex lay def kon bul bul defa defa defa def ba ba jàpp ni li ngay def sa sa njàmbaar la ya jëlal sa bopp rek def ko ci suufu machiatullah boo ko defee rek lépp lu lu la yàlla war a jox rek dina ko indi teg ko sa loxo mu ne ko nag haati nasihatu xibbin mu ni ko haati lii nasihatu xibbin laaye biiru ab soppe la koo xamante ni daf laa sopp boo xamante nii ni laysa yushghiluhu du ko yitteel soxlaalu ko si wallazi lu dul ka nga xamante ni muy suñu borom fadluhu ngëneelam xad kaana nekk na yuxnihi di ko doy mu ni ko nag lii laay biir la boo xamante nii man Seex Alxaaji Mansour maa la ko laay biir yow sama soppe bii di alaaji Seexu Si waaye maa ngi lay xamal ni sàkkuma ci daara lu dul ni ngërëmal yàlla ndax xam naa ni man awma benn soxla lu dul ci yàlla kon nag yow sopp naa la sa sama cofeel ci yow di lu dëggu te ma xam ci yow jikko yi ma wax ci yow ma bëgg aaral la ko bëgg nga sàmm ko waaw kon loolu mooy xasida bi muy xasida boo xamante ni nag lu jara bàyyi xel la ndax nitu yàlla yi bu ñuy waxante yiw wa dafay dotteeku dafay euh, li ñu tuddee sargalante radiyallahu anhu wa radu anhu waaw sargalante boobu suñu borom di tudd ci alquran te nitu yàlla te euh, yàlla di ko defanteeg di ko defanteeg jaamu yàlla yi ëllëg yow yowmal qiyaam muy jullit yi euh, loolu noonu nitu yàlla yi dañ koy defante seen biir pour rek di bañ ñi nga xamante ni ñoom xamuñu ko parce que nitu yàlla mën naa bañ a wax boppam waaye dina wax moroomam pour bañ ñi dëkk moom bañ caa yàqoo waaye doy na doy na doy na euh, rek xel ak tegtal ci ni sëriñ Babacar Si yëkkati ne soxna Zeynabu Si jox ko benn góoru yàlla muy sëriñ cheikh si loolu rek doy na tegtal ci ñu xam kan mooy sëriñ cheikh si bu ko defee ñu ñaan yàlla yàlla may ñu euh, dégg ak topp te sotti seen leer suñu kaw ñu yàgg leen di ñaanal yàlla ba ñoo xañ seen yiw ci barke yonent bi sallallahu alayhi ñu di leen sopp rek ba keroog ñu di leen fekk te mu yeex lool ñu ci ñaan yàlla ci seen barke yàlla dëgg ci defar mbir zahiran wa batinan ndax ñaari nit lañ yoo xamante ni ñu feesoon dell ak wilaaya lañ woon feesoon dell ak batin kon nag buñ dee sargalante euh, jar naa bàyyi xel xaside bi xaside la boo xamante ni yaakaar naa ni képp ku ko jàng te yéene ci tawassul boo paree boo ci loo ci ñaan yàlla def ko kon nag man maa ci ñu ciy dëgg di ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm di ci ñaan yàlla mu jële fi fièvre yi nekk ci biir biir aduna bi jaaxle jaxé yàlla yàlla fajj ko yàlla sammu ñu aar ñu yokk ñu zahiran wa batinan musul ñu bi barakati الله sallallahu alayhi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun